Cheikh Ibrahima mu mel ni door bu ma dayeew ba mu jëfar ñëpp ni siiw mema ma far di ko doxee mu jiit fara ma maram fa danu bokk gan doom jaraama jaraama xatim wati nga wàccaar nga texe yom salaat yi yom ndigal naka nga jot soppatuñu ko mbugal gën ma yaa tax ñuy texe yaa ñu ko jëbbale sa xol fekkoon nga gaar ya xol xaral ñene daqal ñene setal yaa xam mi doxe yaa xam sëriñ bi yaa xeeñ si xir daaw werante ko sëriñ ba jëb yaa bari njëriñ waa ñu yàgg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

yàlla yaay buur di borom allahu la ilaha illallah la والصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وأزنا قديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقت جري جفتي سرين توبا جري جفتي برم توبا جري جفتي برم توبا جرو لك مام شيخ رفال باب المريدين نوغي سنتي الله مباخ دي سنت سرين بي تدي سنت لي الله di gërëm maam Cheikh Rafal Babul mouridine lu bare bari di nuyu mbolo mi fi tew ci jotay bu mag bi nga xamne moy haflatu sukri wa zikri jotay kent ak ngërëm mana jotay kent ak sikar lisanu zikri min bahdi sukri lisanu zikri min bahdi shukri di sant bu baax ci jotaay bi dinaa bu nu nuyoo sang bu tedd bii toog ci sama wet te moom jotaay bi sëy naa lin mooma ñaan rekk ma toog nii ci kaw ngir waxtaane kii may bëgg a waxtaane màggal maamam ju baax ju tedd jooju moo tax mu sàkk woon ma toog fii ma toog noo ngi koy nuyu lu bare bare bari sëñ Abdou Sakkoor di la siyaare bu baax cheikh bi noo ngi lay nuyu lu bari di leen siyaar lu bare bari di ñaan nag ci barkeb Seexul Xadiim ñu teewlu tuuti rek ndax du yàgg waaye nii ko sëñ Aliou waxe li ñu doon def li muy màgg màgg dafa laaj ak xam fa xaddimil ilma ala kulli amal isaa aratta an tafuusa bina amal sëriñ Tuubaa daf ne lépp looy def ilimaani jëf jë mooy xam-xam nee na boo bëggee am la ngay wut ca la ngay def na nga wut xam ca la ngay def kon xam li ñuy def ak xamle ko dafa war ba képp kuy dégg kàddu gi xam ne lii ñu doon def lii la loolu nag mooy li sang yu yi sàkku ci ñun baat bii gimiñ gu yàlla xar moo tax yàlla xar ko baat bii gimiñ gu yàlla xar rek moo tax yàlla xar ko baat bii baat la boo xam ne ëmb na mbooleem li Sëriñ Tuubaa woote laa ilaha illallah sallallahu taala alayhi wa sallam baat bi mboole bi sëriñ bi doon wootee ëmb na ko baat bi nag dafa am loolu ñuy wax irsaat am loolu ñuy wax tafsir am loolu ñuy wax anwaar am loolu ñuy wax asraar baat bi dafa am asraaru laa ilaha illallah anwaaru laa ilaha illallah tafsiru laa ilaha illallah irsaalu laa ilaha illallah dafa am ci baat bi loolu nag tax na ba Sëriñ Tuubaa moo gën ki lépp lu ëpp murit di bareel moo gën ci lépp lu ab murit di baril nee na tudd yàlla moo ci gën xayra muridin nit laa yazaalu saakira sëñ Tuubaa nee na murit bëggën du dañ di tudd yàlla du fàtte yàlla benn yoon loolu nag ku am dawaamu sikkiri yi mu wax nag moom sëriñ Tuubaa ne amaa dawaamu zikri foofu akbaru min kulli ma kaanal muridu yuksiru dawaamu zikri dawaamu zikri ñàkk fàtte yàlla moo waral maam Cheikh Rafal Baabul Muridiina melokaan wii mu yoroon mu yor ko Seydina Alioune noo ngi leen di nuyu yéen waa Jaalibatul Maraaxib gépp Cheikh melokaan bii mu mel ak ni mu melal ñi ko ànd ak moom saxoo zikkar moo tax julliwut baat bi dafa ëmb mbooleem yooyu dara di cee génnul baat bi loolu dafa génnul baat bi zikkar julli daf ko génnul boo demee ci sóortu jumaa day wax ne isaa nudiyati salaat min yawmil jumaa fas'aw ila zikrillahi maanaam julli googu ñuy julli ji zikrullahi la julli gee ñuy julli ci jumaa ja zikrullahi la waaye nag ki fàtte yàlla ba ay waxtu nga di ko fàttaliku ci bis bi juróomi yoon ak ki fàttewul yàlla loolu mooy Cheikh la ak kudul Cheikh Ibra ki fàtte yàlla di ko fàttaliku ci waxtu ak ki fàttewul yàlla kooka bu kàbbarut dafa kàbbaroon te moo tax yàlla ci alxuraan muy wax ne wallazina hum ala salaatihim daayimuna waaye ñi nga xam ne seen julli ga daa sax ñooña bokku noog ñii nga xam ne fil aw xaati ci waxtu la leen yàlla ne ki la julli ñi gëm mais ñi xam yàlla duñu ko sañ fàtte ba di ko fàttaliku sañunu ko yàlla ku mu fàttali boppam dootoo tal lu du moom loolu sëñ Saliou ko xoon Seydi Saliou ko xoon nee na ku mu fàttali boppam doo tal lu du moom waaye koo gis mu tal leneen ba waxtu jot mu teg ko dem fekk yàlla fàttali ko delluwaat ca lam ne woon kooka daa eggagul ci maxrifa amagul xam yàlla haqiqatul iman nag mooy almaxrifatullaahi ñu gëm yàlla te xamagul yàlla ñooña dañuy julli fil aw xaat yi kaan anal mu'minina kitaaban mawquuta ay waxtu la leen ko defal waaye ñii nga xam dañoo sax ki si kar ñooña dañ dul fàtte yàlla ba de ko fàttaliku yàlla nee na ñooñee ala salaati im daa imuna sama sëriñ gaa may dégg Baay Faal lazinam ala salaatihim daa'imuna na keroog ba ma jiit léeg Jibril mu summi meeteel gi ma summi sama mbaxana xam ne kenn waru ko nuyoo mbaxana mu raam ma raam mu jàkkarlook sëñ Bamba jox ko loxo sujjóot ma sujjóot nee bi ma siggee yàlla suñu borom xamal na ma ne sujjóot bi ma ko sujjóotal moom Seexul Xaddim ci loxoom bii leer gu tal ne ku julli waxtu juróom ñu nangul la ko yàlla def na ko ci sujjóot bi ma ko sujjóotal ku julli waxtu yu juróom ñu nangul la ko fa ñuy nangoo julli fa rasulaay jële woon julli xam ne dangay war suba ba tosbaar mu yóbbu la ba tisbaar dangay war suba mu yóbbu la ba tisbaar nga war tisbaar mu yóbbu la ba tàkkusaan nga war tàkkusaan mu yóbbu la ba timis nga war timis mu yóbbu la ba gee nga war gee mu joog a yegg foofee ñuy nangoo julli gu ci yàqu nag julli gi du yegg te bu yeggu duñ ko nangu waaye loolu julli jariñ boo suggeetalee kenn ci mbokk taalibe yi dëggal siggi leer gu toll na ku julli waxtu yu juróom ñu nangol la ko Cheikh Ibrahima ak sëñ Bamba ci yërmandeem def na ko ci loxob Alioune Diop mii def ko sama loxo bii kon dañ noo defal njàppandal goo xam ne dafa mat di waxtaane ndax julli daa jafe de juróom yooyu benn bañ cee gat benn bañ cee yàqu ba mu yegg fan koy nangoo lu jafe la waaye loolu muy jariñ muy tanha anit fax saay wal munkar saa yoo si dootalee Seydina Alioune siggi yàlla defal la ki leer gu toll ne ku julli woon waxtu juróom defar gu toll noonu toppale ke si dóot bi moo tax sëñ Muntaxa ceeb matam gi ak xamam gi yàlla xamam gi sëriñ Tuubaa ba tax mu teg ko ci kanamu mbooloo mii mu ko teg day wax ne ñett rek ne ci kaw suuf muy ko am tawféex ak ku ko ñàkk ak ku ñàkk ndimbal mooy ku nar a texee ak ku am tawféex ak ku ñàkk tawféex ki am tawféex ki ñàkk tawféex mooy ki doyloo téere yi di julli ak a jaamu yàlla te topp téere yooyu sëñ Tuubaa li mu yor te nekkul ci feggu nga bako fa kooku mooy ki ñàkk tawféex ki am tawféex mooy ki jël boppam jox sëriñ tubaa jël am xelam boole seet di jëfe ndigal di bàyyi tere kooku am tawféex moo tax Serigne Touba ne haddayta kulliya bi tawfiqika yàlla defal na tawfiq sama ñëpp man Serigne Touba rasulullaay nee na am tuuti tawfiq moo gën jàng téere yëpp ba mu jeex di ko jëfe te yàlla di la ko nangul am tuuti tawfiq ko gën xayru xalqullaay nee na xalilu min tawfiqi tuuti tawfiq nit am ko nee na moo gën jàng téere yëpp ba mu jeex di ko jëfe kullu shay'in yaxtaaju ila al ilmi waaye wal ilmu yaxtaaju ila tawfiq xayru xalqullaahi nee na mboolem luy taxaw ci àdduna xam-xam lay wut ngir taxaw waaye xam-xam de taw feex ko tee nelaw moo tax maam góor di wax lu jaaxal nit ñi toog télévision di waxtaan te taw feex jooju may ko jàngi woo keer demoo siin sëñ na àlluñ toog fii ci jaalibatu maraaxib di bëgg sëriñ tubaa taw feex dimbali ko ba muy wax ci xam-xam loo xam ne ñu jàng ba jóge keer bu ñu dee diglu àlluñ jóob jëlee ci xalaat yoo xamante nii seen xalaat ak gucca baa buñ waxee wax joojaa koy gën a leer ëpp ko njëriñ موتاخ خير خلق الله له إيه؟ كل شيء يحتاج الى العلم والعلم يحتاج الى التوفيق خم خم خم خم لين تينالو واي خم خم موم توفيق كو تينالو دغولن لي واخ دي نينا خم خم لين تينالو واي خم خم موم توفيق كو تينالو يا خادم يا مختدم yaa man iliyee juudahu yabtadiru li gaa yi njëkkante moo nuy wër li gaa yi wut moo nuy wut li gaa yi wut moo nuy wut li tee nelaw gaa yi ñoo ko tee nelaw li tee nelaw gaa ñi ñoo ko tee nelaw ajjana mooy bànneexoo ab murit am ko moom àjjana waaye murit du bànneexoo am àjjana àjjana mooy wut murit waaye murit du wut àjjana sawara moo ragal ab murit waaye ab murit ragalul sawara murit sawaraa ko ragal di ko muslu ak daw ni ko nit ñi musloo ko wartoo ko dawe moo tax maam ju baax ju tedd ja ke njaarim Sëriñ Tuubaa rëdd rëddam wa ne ku jéggi dem sawara mu jéggi jox ko loxo moom Cheikh Ibrahima ne ko ragaluma sawara bëgguma àjjana am murit sawaraa ko ragal lii may wax wax naa ko ci France sama loxo bii laa tekki reso gaas bu xonq cooyu keroog murit sawaraa ko ragal ragal lun sawara sawara moo ragal murit ajjana mooy bànneexoo ab murit dugg ci biiram waaye du murit mooy bànneexoo dugg ajjana innama hamillahu wa daarul aaxar Cheikh Ibra ne yàlla aw ma jënn yi te julul yow dara génnewoo sama kër lu wut sëriñ bu yegg ci yàlla bu ma mën a yeggale ci yàlla xam nga loolu sëñ bi lu jafay dégg la waaye ajjidu min xaalihi nuurul xaqi tandafi amaamahu zulumatul xalqi wa tanjali bihi ayatul xaqi لو لم أجد أحد ممن هذه صفته إلى قبره لبلغني صدق نيتي في أملي لو لم أمسك رفع لك وخ شيخ محمد البصير ممسلم سيرن توبا نكو كاي ما سما جاينتك أكسا ويجروا جورو نكو لم تغرني من بيتي الى طلب شيخ واصل موصل لا وخسر سيرن توبا dara génnewuma sama kër lu wut sëriñ bu yegg ci yàlla bu ma mën a yeggale ci yàlla dara génnewuma sama lu wut sëriñ bu yegg ci yàlla bu ma mën a yeggale ki yàlla sëriñ bi may wër nag te yàlla tegtal ma ko ma di ko wut man Cheikh Ibra dinaa fekk ci moom noorul xaqi alxaqu mooy yàlla alxaqu mooy yàlla moo tax yàlla dong la yëngoo nag moom ngeen yëngoo fii léegi ba toog yàlla daal nga yëngoo waaye yéen it moom rek ngeen yëngoo ba toog sëy naa liun yàlla nee na ñi may ñaan julli ñaan lay firi nee na ñi may ñaan baatu salaatu lay firi ñaan moo tax ñu wax salaatu ala nabi ñaanal yonent bi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim salaatu day firi ñaan yàlla nee na ñeey dem di ma ñaan ñii ma doon tudd te jaamu ma rekk tax ak tudd ma rekk tax ñu tudd ma te ñaan nu ma dara lu tudd ma danaa leen fekk fan may tuddee defal leen lu gàcceel ña may ñaan lan luy am ca fan yu may ñaane yooyu dafa mat a dégg waaw Baay Faal mooy ku nu jéggal ba noppi murid mooy ku nu déggu njéggal waaw ñii ñaan te amagunu ak ki am ba téye bokkut Baay Faal Baay Faal sëñ Mor Mbaye Cissé ko wax de nee na Baay Faal mooy ku nu jéggal ba noppi murid mooy ku déggu njéggal yàlla nee na lii ngeen doon def te bi ngeen dajee géew Seydi Saali ak tur yàlla mu sell wii te bi ngeen di taxaw di sikar ba bi ngeen di ba amul lenn lu ngeen ciy sàkk lu tudd yàlla looloo tax yàlla ne wala zikrullahi akbaru waaye tudd yàlla ku Seex Ibra dimbaliwut tudd yàlla yombu de man maa nga ak sama junniy per sama néeg sëy naa li mu gis na ko waaye damay toog de waaw soxla taxa toog ma toog soxla yaa latif yaa latif waaw yaa nangam ngir soxla bokkul benn laa ilaha illallah bu yàlla tax de bokkul benn laa ilaha illallah bu yàlla rek tax bokkul ak loolu ñii ñaan yàlla yàlla nee na sama xéewal yi baaxoo woon a jeex danaa ko xëpp ñii ma doon tudd ngir bëgg ma ba ñii ma doon bëggal bu ñëwee ci man duñ fi fekk dara waaye comme li ma yor du jeex moo tax faaw ma jox leen waaye nag bu doon luy jeex a danaa ko sotti ñi ma bëggoon ba ñi ma doon bëggal bu ñëwee ci ma doon fekk dara moo tax Serigne Touba ne diine hubbulaahi sama diine man Serigne mooy bëgg yàlla sama diine mooy bëgg yàlla man Serigne Touba imaam Junayd dafa laaj yàlla ne ko aw sawara bii ngay mbugale ñi mooy moom sawara ci boppam bu la mooyoon loo koy mbugale imaam Junayd di ko laaj yàlla mu ne ko annaaril kubra sama sawaraw mag wi mu ne ko li sa waroom mu ne ko sama soppe yi cofeel gën am ci man yàlla su ma ko xëppoon jahannama fu mu ak toll dégg yuuxoom gi cofeel gi nekki noonu muy bëgg yàlla gii muy muridullaay gii yàlla nee na bu ko jahannama mooyoon ci la koy mbugal ku ëmb loo xam ne bu jahannama mooyoon yàlla ci lañ koy mbugale xam nga ne sa waraa la ragal waaye ragaloo sa ku ëmb loo xam ne bu jahannama mooyoon yàlla ci leen koy mbugal mu ne ci yow xam nga ne kooka de sa waraa ko ragal waaye ragalul sawara moo tax du junne ji bi mu ko laajee ne ko waaw jahannama mi ngay mbugale ñi lay mooy moom jahannama ci boppam yow yàlla bu la mooyoon loo koy mbugale yàlla ne ko annaaril kubra sama sawara wu mag bi dafa ne fu ne la ko taal mu ne nekk mooy cofeelu soppeem yi nee na mooy taalam bu mag bi nee na soppee cofeelu soppeem yi sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké ne ma ci làmmiñam bëgg sëriñ Touba ak Touba mooy tegtale bëgg yàlla ci jaam déggu leen ma de sëriñ Saaliw Bàkkee ma ne ki làmmiñam bëgg sëriñ Touba ak Touba mooy teg tegtale bëgg yàlla cib jaam te nee na yàlla sunu borom de bépp jaam bu ko bëgg sëriñ Saaliw nee na daa fekk mu sàkkal la ab cër ci boppam may la nga doog a bëgg yàlla waaye ku yàlla cërul ci boppam doo ko bëgg sëriñ Saaliw ma ko wax waaw ku cëru ci yàlla Seydina Aliou loo war a ñàkk loo war a yaakaar loo war a xalaat xam ne yàlla lépp laa wax de sëriñ Saaw nee na képp ku bëgg yàlla daa fekk yàlla sunu borom bañ la ci boppam ab cër moo tax nga bëgg ko waaye ku yàlla cërul ci boppam doo ko bëgg boo demee ci alxuraan day wax ne xaw xawmun yuhibbuhum wa yuhibbuunahu nee na maa leen njëkk bëgg ngeen door maa bëgg waaye ku ma bëggul doo bëgg Cheikhul Khadim boo demee ca matla bu sifa yi da ngay dégg mu ne wa axrinaa bi hubbihim li waccika wa axrinaa bi hubbihim li waccika wa axrinaa bi hubbinaa fanatluka sëñ Tubaa ne yàlla nag ma xiir labal ci bëgg leen ngir sa jëmm moo nu njëkk a bëgg ñu door koo bëgg moo moom lépp tànn ki lim bëgg lim moom tànn nu bëggal nu boppam doog noo wërsëgal ñu bëgg ko murit boo gis muraad la muraad ngay njëkk a doon doog a doon murit Serigne Touba bëgg nit kooka doo ko mën a bëgg Serigne Touba Serigne Touba kum nangul doo ko defal dara lii ñu koy defal lépp tuuti rek ma conclure li ñu koy defal lépp moom rek la waaye du keneen moom rek moo nu ko jagleel ñun ñëpp ñu koy defal lépp lu mu nu dimbalee la ci boppam lii ñu koy defal lépp wane ñun nun toll ci moom moo war tax mu di ko def. ngir nit ki li nga li mu la jaral rek moom Serigne Touba mooy la nga am ca moom waaye soxlaalul kenn dara lim nu jaral rek mooy li am ci Serigne Touba ku ne lam la jaral rek ndax bëgg xool jaral gi moo tax mu naan damay jaay waaye li muy jaay amuñu njëgam ku ma defal loo man ma defal la loo mënut la wax amul kenn ki ñu ko am njëgug li ñu Serigne Touba defal fa muy jaay kenn ki ñu jotiwu fa kenn ki ñu jotiwu fa kon war noo xam li mu defal ba lii ngeen def yéen waa Jaalibatu Muraaxib ak mu jot ngeen tànt seen tànt bii dox seen jéego wii ngeen dox fan yépp ngir jëmmal lii ngeen di jëmmal ngir wone màggu borom Tuubaa gi ak darajey Cheikh Rafaal ji lii laa ne ku yàlla bind ngay dox ci kaw suuf war na la te ki lii rekk nag la ñuy natte nit ki fu mu toll ah lim la jaral rek moom sëriñ bi waaye comme jarul dara amoo ci dara sëriñ bi soxlaalu kenn dara sama lépp defaroon defar ko yos yàqu ba kenn mënu maa defar dara kenn mënu maa yàqal dara des may jéem a defaral ba defaroo ci des may jéem a yàqalit ba yàqoo ci lii la ku tedd ki waxal boppam man sama lépp defaru na defaru gu weesu yàqu te booba yéen bind fi amagu leen sama lépp maha laaw an alxa asa xalqu wa ama maa siya bil baaxi la si xidmati rama min an naari wa seytaani xad ostu mun dama bi rabbi ila quddaami man indohul asma Sëriñ Tuubaa nee na man Serigne Touba sama lépp sama lëpp yàlla defar na ko te boobu mbindeef yi amut bi may wàcc ci mbindeef yi ma laaw asa xalqu mu ama amatal xalqi bu ndegee woon di ma jéem a ne mënalul ma dara man Serigne Touba mbindeef yépp ñu sa ginneeg malaaka bu leen yàlla degale woon ci man sëriñ tubaa maa law asa xalquhu amma amatal xalqi buñ daje woon mën numaa lool man sëriñ tubaa amatal xalqi kooku moo mat a làqu waaye ki la gën a ragal li lay dàq foo toll baadu amoo su billaahi mina seytaan rajim ki la gën a ragal li lay dàq muy seytaane mi nga xam ne moo ëpp doole gaa yëpp kum ci daane lu amul yàllaa bari yërmande rek Sëriñ Tuubaa képp dong rek nee na ni ko nit ñi musloo ko dawee ak wattu nu ko raw la may musloo nu ko raw la may wattoo nu ko raw la may dawee mat a làqu kooko ni ko nit ñi musloo ko wattoo ko dawe nu ko raw la may musloo nu ko raw la may wattoo lu ko raw la may dawee man Serigne Touba moom saytaane te it mafasid yii di alalam it man dong maa ko mos a ku dul man laal nga alalam ba mu des man mafasid yi mooy alalam faaraxtu iblis wa jameel mafasid yi la Serigne Touba bind mësuma laal alalam waaye koo yor alalam nee na du ngeen tàggoo koo yor alalam sëñ Tuubaa ne auzu billaahi mina seytaan rajim dana wane ne bëggoo ko waaye boo bëggee mucc ci moom da koy bàyyi ak ma fasitam yooyu ko yàlla bind jox ko ko muy alalam sëriñ Tuubaa moomu dañ ko war a kennal ne mooy yërmande bindeef yépp amul xeej ak seen nag ko ci war a génn amul di ko yéene ñëpp rek waaw xam ne ku yàlla dogal leneen nit ndogali yàlla waaye sëriñ bay njëriñal mbindeef ñu xam ko ñu ñëpp kenn ku ne xame ko na ko war a xame ngir dooni Cheikh Ibra Fall kat faaw ñu gëm Sëriñ Tuubaa nii ko Cheikh Ibra Fall gëme woon Sëriñ Tuubaa nee na joxuma fi lu ma kenn joxut léppam la ma jox ngeen jox ma seen lépp waaye damaa teg fa ma yàlla teg Cheikh Ibra Sëriñ Tuubaa nee na damaa teg fa ma yàlla teg waaye joxuma fi lu ma kenn joxut ci yéen mag ñi lay jàkkaarlool Cheikh yëpp ne leen joxuma fi lu ngeen ma joxut seen lépp ngeen ma jox mu jox ma léppam waaye damaa teg fa ma yàlla teg teg ko fa ko yàlla teg nag mooy xame ko nii maam alaaji malik radiallahu anhu mii ki ci waawan moo ne ma minna mahsaral masaayixi ahadun ilaa arafa fi nafsihi afwatan aw afawaatin taaba minha ilaa huwa nee na ku dul tubaa ci ñu fi yàlla masa yabal jamono ngay liggéeyal yàlla xam nga sa bopp rëcc rëcc ci yooyu fàttali ko di ko tuubam la sëriñ tubaa Cheikh Ahmad Bamba nasa muhsinan mustaqiman fa xaaloo fi siqarihi wa kibarihi sawaawun alaaji malik nee na moom ba mu juddoo la ne noonu la ki la neex yàlla ba fekk yàlla mësta mooy yàlla mësta def lu naqar yàlla yu war a astaghfirullah ba noppi dàq tuubal yàlla ñiy tooñ yàlla kookoy sëñ moo dàq tuubal yàlla ñiy tooñ yàlla ndax digle gi yàlla digle tuub kooku mooy sëñ Bàmba Cheikh Rafal mii ko kennaloon nii mu ko kennale nag ba sëriñ bi ne mooy baabul muridina ñun ñëpp ñu bokk roy ko bokk roy ko góor góorlu sëy naa Alioune sëriñ Saaw nee ma hmm. liggéey bu murit boo gisee mu mu doon lu yàlla yi dimbali murit bi ba muy jariñoo liggéey bi nee na coono yi ngeen nekk fan yi fu ne ngeen dugg fa yenu baas yeeg liggéenti di xalaat lu ngeen di togg ak wuti nag ak a liggéenti nee na coono yooyu ngeen nekkee Sëriñ Tubaa da koy jël ab xam-xam ak leer sotti ko ci seen kaw nee na sotti googu mu koy sotti ci seen kaw sëñ Saali wax nee na def googu muy def ci ñoom leer googu ak ak ak ak xam-xam boobu muy def ci ñoom ñi koy liggéeyal nee na mooy tax ñuy xeeb la ñuy def xam-xam bi dolli ko ci yéen mooy tax ngeen di xeeb li ngeen di def nee te jëf ju nu nangu xeeb nit ki xeeb mooy tax ñu màndargaal ne nangu na waaye nangu jëf ji nee na ngi ci xeeb ak nit muy def waaye Serigne Touba nee na li ngeen di sonn coono yi ab xam-xam la koy def ak leer di ko sotti ci yéen lu ngeen gën a dox ci mbir mi di gën a xeeb li ngeen di def bari lu yàq jëf lu ne. yàlla musal leen ci kooku moom rek a mat a liggéeyal fàggul nañu lépp luy aar suñu digganteeg lépp luy yàq suñu mbir defar na ko moom Serigne Touba fii daal laa doon wàccee sama kàddu tey ñaan ci barkeb sëriñ bi ñu yàgg ko ànde ndax lii ngeen may defloo kat sëñ Alioune du yéen du man man lii ma yor nii di wax bokk naa ci murit yi nga xam ne. su ne woon ku amul ndigalal Serigne Touba ci waxtaane ko na noppi man du ma noppi man Serigne Touba may liggéeyloo ci xam-xam bii ma yor wallaahi asim moo ma ko wax ci làmmiñam dama ne kii liggéeyloo kon wax dëgg yàlla mooy taxit ma doon xalaat ne rek dem ba egg fii may yegg rek yemale ko fi waaw moo ma yemale ko fii waaye dama ne soo gisee bi nga demee ni ma yeggale ba yeggale ko fii ma ko bëggoon yeggale yéene ko mbindeef yii may waxal tax waaye du leneen maa ngi santaat yàlla bu baax nag ci kàddu gi ndaxit it nit ku ko liggéey loo yaa ko añ loo ñun liggéey ko képp suñu njariñ ñun ñëpp waaye lii moom daa bokk ci waaru may bayloo moom Serigne Touba du yow du Baye Fall mais du keneen mooma moo waral bi may ñëw wax dëgg yaay yow xam nga ne paas yi dox doo ma ko jox yow xam nga ne doo ma jox sax paas <laughs> ñëw naa fi cant goo xam ne nag maa programme ma ñëw waxtaanu mu far ba may ñibbi joxuma paas <laughs> waaye xam gi nga xam ne man damay liggéeyal Serigne Touba moom laa la wuysee xam ne yéen da ngeen di liggéeyal Serigne Touba loolu laa leen wuysee loolu laa leen wuysee kese di ñaan ngeen yàgg fi loolu te wér nag maa ngi ñaan Serigne Touba nangal nu ñun ñëpp aaral na sunu liggéey yëpp te ba te ba mu ba mu mel na mu bëgg ba gërëm ko. te melal mu nam bëgg ñun ñëpp ci barke Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sàmm may la fan gudd ak wér di tuubalaat bu baax sëriñ bi di Serigne Abdou Chakour Fall ndax biñ lay jox kàddu gi dafa ma woo wax ni yaram yi fan yi coono yi jàpp na ko te mu am barab bu mu bëgg a àgg waaye ma ne ko Fall yaay taaru jotaay bi ndax yaa fi teewal jëmmi Cheikh Ibrahima Fall kon nag boo nu ko mayoon mu waxtaan ba daaneel nga ñaanal mbooloo mépp ci lañ ci lañuy gën a am mbég. ndax jëm maam Cheikh rek tax ñu am jotaay bii ci mbaaxam ak fam mu nangul nu ko moo tax bi ma toogee ba yàgg rek ma xool ko xoolaat ko rek moo tax ma fàttali la waaye ñun ku ne xam ne suñu mbir amul amul amul yàkkamti waaye nag dañoo woo bokki taalibe yi te kenn ku nekk it xam nañ eh, ni mu fi ni mu fi dikkee ak coono yi te yow suñu diggante ak ku ne xam na ko te it ñi ngi amaat yéene suba lu mel nii am loolu rek la sant nañ bu baax a baax kon Fall jërëjëf suñu xol na toogaay bii nga fi toogaat ba liggey bi ak si ñu ngi la ciy sant bu baax ndax wax deug yalla deggantu mak yow sax waye ku la xam daal yi dañ fi am ak njabot ci koñ bi ci gox bi di xam itam fu ñu wootee liggéey bi suñ bamb rek ya nga ci biir kon faal ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ah, di sant mbokk taalibe yi ndax bu mu joxe sëñ bi rek day yëkëti kaddu yi mu yëkëti ñaanal mbolo mepp waye suñu bàyyi naar jaag mii Fall maa la koy séral ndax da fay nekkal jëm bi maam Cheikh ibrahim bis bi bañ ko tàmbalee ba tey defe naa fukki at ci ren guddi gu jot mooy jaayante la jëm ci guddi maam Cheikh gi mu ngi nii toog te ni la koy ànd ñun am na fi jamono boo xam daa wéradi woon lool waaye teewul nuñ la ko ànd ñun ba fajar te bu subaat noonu la koy defee kon ñu ngi lay seeral taxawaayam bu baax muy sëñ Assane Diack di siyaare jëwriñ yi fi teew yëpp ba mu tuddee sëñ Cheikh naa Wade jëwriñu Xidmatul Xaadim moo leen Baay Faal yi mu yóbbaale ñëpp sëñ Lamp maa ngi leen di siyaare sëñ Serif ñëpp jaa ngeen jëf yëpp rek mboolem kuréel yëpp ci tur yi ñu wuyoo daara ji ñu ngi leen di sant di fet bi suñu kóllëre ak yéen tey wax ni lii ngeen ñuy defal mënuñ leen ko fay waaye nag jëm maam Cheikh mi nga xam ne moom ngeen di liggéeyal yal na leen gàttandu ak tawfiix xam ñu nangu nangu seen liggéey nangu suñu liggéey sëñ Cheikh Maysa Gueye mi it ma seeral leen ko Ndakaaru la bàyyi ko da bàyyi fay ay jotaay yu bari ndax moom Cheikhu Cheikh Abdourahmane Fall Tilala la muy jëwriñ ju am taxawaay foofe di kilifa ci ci yoon wi waaye bis bi bañ ko ko saraa suñu xamee yàggul waaye bi mu gisee jot li rek dafa gëm ni bis bi bis bu war a ñëw la mu bàyyi lépp ànd ak ay bokki talibeem sëriñ Mbaye Guèye mii moom itam di kilifa ca kër ga ànd ak ñoom sëñ Bille Saw ñu bari la àndal boobu ba tey mi ngi bu fii ma nga jëm Kawlax kon loolu itam mënta ñàkk yéen waa dëkk bi ma seeral leen ko ndax soow la bàyyi ko teew fi sëñ maam góor caam yow itam ñu sant la ziar la siyaare kilifa yépp bàyyi wunu kenn kon bis bi daal mi ngi noonu defe naa sëñ Moussa kaayal bi àgg na kon kaayal boobu ngeen jàng ak li ñu fi def ci zikrullaahi lépp def nañ ko addi maam Cheikh na ci bég te gërëm ko ngir jëm yi sëñ Touba moom nag doon naa ci bëgg wax lu gàtt rek ngir gën a dëggal ni moom ak bëgg sëñ Bàmba ak lëggéeyal ko ak wut ci moom lu koy jariñ ñun ñëpp ci moom lañ ko mën a amee. damay dégg damaa dégg sëriñ Basiiru Mbakke moom Cheikh Abdou Karim mu la ñuy wax sëñ Basiiru xel koom sëriñ Saaliw moo laajte woon kër sëñ Chouaïbou ana ko fa man alquran ñu ne ko sëriñ Basiiru moom ci Abdou Karim day moom mën na alquran sëriñ Saaliw laaj ko sëñ Chouaïbou sëñ Chouaïbou jox ko ko ne ko boo demee loolee mu lay liggéeyloo na nga ci góor góorlu ndax yiwu àdduna ak wu allaaxiraa nga ca moo ko nettali waaye nee na da ba mu ñëwee daa fekk dongo sëñ Saaliw yi di saaga te que sëñ Chouaïbou waxuma la saaga waaye kenn du wax ca kaw booy woote da ngay fitta su ndànk baa nga waaye wax ca kaw sax sëñ Chouaïbou may ko kenn nga xam ni kër ga day mel ni ay néew fa nekk mu yar ci loolu xam loolu ñëw kër sëñ Saaliw fekk dongo yi saaga ca kaw léegi nag muy jéem a lijjanti loolu di ko jéem a defar di leen tere saaga ak yu ni mel ba bis mu ñëw sëñ Saaliw ne ko ñu ngi sant bu baax de Mbàkke ndax dongo yi sax seen saaga ya xaw nañ koo wàññi mu ne ko ah yoon wi de moom salaaw sax saaga bokku ci waaye kenn mënu ko cee jële nag waaw kenn mënu ko cee jële ne ko nag xanaa xamoo ni sëñ Touba bañoon na saaga ba kim jëkk dégg mu saaga moo ko doon dóor moom sëñ Touba di yëkkati loxo bi di dóor naan ko saaga baaxul waaye nee na loola ba ko maam Cheikh Ibra Fall déggee lii rek moo tax ma di ko nettali ba mu ko déggee ni suñ ba am na ku doon dóor ndax daa saaga dañu ay suñ bamba am na ku mu dóor ay waaye kooku am na tawfiix de lu mu def ñu ne ko daa saaga mu ñëw ci ëtt bi di saaga ca kaw naan nangam taan ca kaw ngir ne daa bëgg suñ ba dóor ko ndax dóor yooyu la bëgg moom ngir bëgg gi mu bëgg sëñ tubaa ne loxob sëriñ bi jug di ko dóor loolu la bëgg muy saaga ca kaw muy ne dangay seet ku bëgg jëmm ba àgg ci lay jóge ci moom tey ndurul sax da koy bëgg yow ngir bëggoo ko bëgg loolu rek moo tax ma nettali ko waaw loolu dafa mat a bàyyi xel bëgg borom tubaab ba àgg ci la nga jàpp ni bu la ko defoon day metti da nga koo bëgg ngir bëgg ko loolu ba ma ko teewloo sëñ Basiru mu wóor ma ne dëgg la ndax sëñ Basiru xel comme wax na dëgg sëñ Saliou ma ko wax dama ne damay woote ak cant sant maam waaye bis bii rek laa mënta boole dara waaye jàppoon naa man woote sama kër woo bay fan yëpp def la ma man sant maam Cheikh Ibrahima ci loolu billaahi waaj naa ko waaye daara ji damaa ànd ak ñoom te bëggumaa beru di woote dara bëggumaa beru di def dara lépp boo ko fas yéene ànd ak ñoom waaye lii ba ma jotee dama cee jooyee jooy ba sonn bëggoon cee woote bi sant ci maam Cheikh Ibra ngir Sëñ Tuubaa ma bëggul ku dul moom moom ni ma ko gën a bëggee ba ma xam ko gën koo bëggee ñëpp tax ma bëggoon koo sant kon loolu faaw ma wax ko tey ngir ngir delloo ko njukkal loolu rek laa ci jublu waaw ndax man wóor ma fay wax dara waaye nag maam Cheikh Ibra Fall damaa bëgg ñu yëg ni ñun dañ koy dund ndax kenn mënta am borom Tuubaa te xooloo ko koo xam ne àgg na ci bëgg na borom Tuubaa di ko dóor te ay dóor du neex ngir dara lu mooy bëgg Sëñ Tuubaa rek loolu dama ne lu la kon loolu jot naa ko ngir màggale ko ko ak sante ko ko ak fàttali ko ci bisam bii maa ngi ciy jéglu lu baax kon faal bisimilah kaddu gaa ngi noonu dund teraanga sa doomi xàjjana ji ma demoon ko texe de kii gën a doon murid saadix wasalaam est-ce que quraan za iqaamu li salawaatil xamsi bi sixaam wa tarbi bi jamii harakaat wa sakanaati harakaati barakaat yàqudu lii maa ngi ndoo wa mën naa am doole kabat ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp ci jiital ni ko sëriñ Aliou waxee sëriñ Abdou Sakkour Fall mii nga xam ne moom sëñ seex Fall moom maam Saliou muy maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muriidiin di jaarale ci moom ab nuyoo mu jaar ci rakkam ji yi toog ndax sëñ Aliou bi sëriñ bi ñëw ànd na suñ Mor Talla Fall moom tuddee sëñ Talla Fall moom sëñ moom sëñ Cheikh moom sëñ Saliou moom Saliou àndoon naa gi sëriñ Ousseynou Fall mi nga xam ni sëriñ Talla Fall moom sëñ Ablaye mooy waajuram maam Cheikh la Fall moom mu ngi ni toog mu ànd ak itam rakkam sëriñ Modou Fall moom sëñ Cheikh mu maam Saliou tamit moo ngi ànd ak doomam itam Cheikh Serif Assane mais. mu sëñ Cheikh Fall Roqee mu toog nee muy délégation boo xam ni kon mel na ni njabootu Cheikh Ibra gépp ñëw ndax kër seex Modou Sa Fall bu ñëwee ànd ak kër Maam Saliou kon kër Cheikh Ibra gépp ñëw na sëriñ bi nee na sëñ Aliou mooy lay nuyu di nuyu sa gan ñu tedd ñii tàmbalee ko ci sëñ Cheikh mooy sa géy mii nga xam ni sama xamee moom yàgg na lool ci barabu sëriñ Abdourahmane Fall ci la serigne Cheikh Fall doomam sëñ Cheikhouna Fall ñew ke serigne Alaaji Géew sama serigne sama xarit loolu kóllëre gu yàgg la dakar yet ñuy daje jagsaaw ci soxnaami Fall di daje muy jëm jo xamni ni Cheikh ibrahim Fall rek ko ñor moy yittem moy ak bëggam motax bi serigne bi ñëwee serigne Baye mu jël loxom teg ko ci loxol sëriñ Baye Sàkk nii ni ko kii mooy sëriñ Maysa Gueye Cheikh Maysa Gueye wëllëre baayam la tamit sëñ Cheikh Fall dañuy daje bitim réew fépp à travers Europe Cheikh Maysa mi boo ko gisee dangay ni mu woyofe ak baax gi mën na laa réer ci ay mbiram te intellectuel la aussi te loolu dafa bokk ci maam Cheikh Ibrahima Fall mm. waaw ak intelligence da ko dafa baax dafa baax ci ab Baay Faal mm-hmm, mm-hmm. spirituel bi mu yor moom da cee élégance waaw mu ngi noonu moo tax ma koy sant bu baax di ko ñaanal ci doole Cheikh Ibra nga gën a dolli ko ngërëmal Cheikh Ibra te bokk na ci jikkoom cër bii mu yor taxut mu def njabootu Cheikh Ibra Fall gi morom foo ko fekk bu fekkee njabootu Cheikh Ibra bu doon dallu Cheikh Ibra Fall sax na ko fomp ba mu set teg ko ca kaw loolu nag bëgg gi bëgg Cheikh Ibra Fall la loolu rek moom noo la ciy sant di la ñaanal nga dolli fee yàgg ci doole moom Cheikh Ibrahima Fall kon sëriñ bi loolu rek lañ ko doon jotale leen bay naar bay sàkk ngi sant mboolem njaboot gi di ko jaaral nag siñ ëll yu nga xam ni moom du sonn hmm. du tay yitteem jëpp mooy sëñ Tuubaa hmm. jaay na ci dundam jëpp ba nu xam ko nag te bi it nañ koo seede wóor na maam Cheikh Fall looloo waral tamit ni mu ko waxee seexu naa wàdd mii fu ñuy joxe bakkan fu ñuy laaje bakkan ci yoon yi sëñ Aliou day taxaw te du nekk ci sàpp si mujj si njëkk ji lay taxaw am na fii lu fi xewoon sëñ naa sëñ euh, nu mu tuddati sëñ Aliou Badara Wade mii di ko wax bi muy leeral di jot li xidmatul xaddim liggéey bi guddig maam Cheikh bi da koo leeral dafa wax ni bi ñuy dajeeg mbokki taalibe yi te lu na xajoon na ci nag ngir gant gental bis boo xam ne dafay naroon a am sëñ Touba di nu ci liggéeyloo ñu fanq bis ba ba amewul Cees bi ñu lu ñuy def mook sëñ Seexuna Wàdd mi ñooy nekk ci kanam bu ñu doon ay tiire ay bal ñoom lay njëkk a dal doo ko dal ñi ci ñooy njëkk a joxe seen bakkan te ndekete loolu ñu doon def